xam nga comme j'ai dit euh, j'ai été choisi mais choix bi xam nga dafa xawoon metti parce que ñëpp bëggoon donc bi ñuy nekk bi ñu nee ku bëgg a nekk candidat Yewwi on était dans la coalition ku nekk sa partie ngemb la man pur ngemb ma waa Pastef am seen candidat waa euh, nu mu tudd sax PM bu Habib si am seen candidat ñeneen ñi am seen candidat on était daal. bon dans un premier temps on nous a demandé de se parler waxtaan pour xool li ndax di dinañ am consensus si suñu biir ku nangoo bàyyi ñu ñu nangoo bàyyi jiital kenn mais kenn bëgguloon cédé bon ñu ni léegi qu'est-ce quest faut faire ñu ni léegi nañu ku nekk na nga def sa dossier wax yaay kan sa CV lan nga def qu'est-ce que tu représentes nga yóbbu ko maintenant xam nga ci coalition bi amul mhm. lu ñu tuddee conférence des leaders. ñu doon arbitré amoon na commi commission d' arbitrage. d' arbitrage foofu la ñu yóbbu dossier yi. Mhm. bi ñu yóbbee foofu ñoo ñu càmbar ko ci lañ ma tànn après. xam nga moom lay wax lu ñu bari dañ naan ma je suis un inconnu wala xamuñu man maa ngi commencé def poli depuis 2005. comprendre maintenant xam nga nit ñi ku nekk ak ni ngay defee poli am na ñoo xam ne il préfère dem ci média yi am mooy li ma wax légitimité médiatique. Mhm. donc comme Sénégal dëkku wax la ak coow. donc nit ñi la xam la nga voilà nga am ci benn tur. donc am na yoo xam il préfère ça man je suis pas comme ça je suis dans ma dans ma dans ma dans mon milieu. Hmm. et je suis un chercheur je suis un docteur donc am na loo xam ni wax ju bëri jeeg coow lu bari li hmm. ak sama nature dëppoowul ak loolu. man maa ngi maa ngi sama milieu di liggéey. donc 2005 laa commencé def. je connais hmm. Sénégal tous les acteurs yi fii nekk la plupart d' entre am na fu ñu jaar ci politique n'est-ce pas donc ci lañ ma tànnee ci sama parcours. politique. sama parcours académique ak sama voilà ce que je représente ou bien ce que PUR représente dans la coalition bi ñu ma tànnee nag neexul ñu bari naturellement xëccoo la woon politique la donc bi mu leen neexulee bon certains ont préféré quitter la coalition candidat wu Penco nga xam ni moo ne woon le point focal de Yewwi le point focal de Yewwi. Mm-hmm. à Thiès Ouest maanaam bi ñuy taxawal coalition bi à Thiès mhm. ci moom lañu sukkandiku mu taxawal coalition bi. c'est Moussa Tine. non hmm. Moussa Tine. Hmm. il est candidat à la ville il était candidat à la ville et son parti mooy hmm. Penco. d'accord moom tamit bi ñu tànnee le docteur Babacar Diop à la ville il a quitté. ak kii ma la wax nga xam ne moo ko représenté woon il s'appelle Mara Wade. d'accord donc moom moo représenté woon euh, Penco dans la coalition à Thiès nekk le point focal donc biñ ma tànnee ñoom dañu quitté. ils ont préféré quitter dem def seen list bopp moom ci boppam mu nekk candidat au même titre que moi pour poste bi mais sur la liste de Benno donc ñeneen ñi qu'est-ce qu'ils ont fait comme gëmuñu ni woon ni mën naa gagner dañu dem ci liste proportionnelle bi xam nga y a deux listes. Mm-hmm. dafa am liste majoritaire am liste proportionnelle. list majoritaire mooy raw gàddu ku gagné ña fa nekk ñëpp dañuy nekk conseil mais su ngeen pertee ñëpp kenn du nekk conseil mais bu dee liste proportionnelle c'est au prorata ce nombre de voix yi nga am mmh. ci la ñuy mën nekk conseil comme c'est comme à l'Assemblée nationale rek léegi nit ñi voulant être coûte que conseil te gëmuñu ni man mën naa gagner sama concurrent huit yooyu ma waxoon nga xam c'est des candidats mmh. ñoom ñëpp dañ dem ci liste proportionnelle man rek ma jiite sama list majoritaire ak parfois des gens yoo xam ni ñi leen indi woon seeni leader te dem liste nekk ci liste professionnelle ñoom lañ indi ci liste majoritaire pour je donne une anecdote damay cest à <laughs> moo tax gëm yàlla dafa baax man loolu laa ci jànge ci mbir yi xam ni yàlla mbiram sotti na am na ñoo xam ni ñoom ñoo nekkoon seen liste seen tête de liste wala seen leaderu parti wala mouvement parce que coalition bi amoon na ay mouvement mhm. ñoom ñoo nekkoon seen leaderu mouvement ci coalition bi mais bi ñu ma tànnee ñu dem ci liste proportionnelle bi jël ñoo xam ne ñoom seen i i euh, militant lañ wala sympathisant mhm. indi leen ci liste majoritaire bi ñooñu jàll ñoom mujj jàll d'accord parce que fi ñu nekkoon ci liste proportionnelle bi dafa sori est gis nga li lay wax mhm. y a des yoo xam tey à Thiès Ouest dañu bàyyi list majoritaire bi dem ci liste proportionnelle bi. xalaat ni foofu dinañ fa mm-hmm. jàll. mën a nekk jël ay seen second couteau. Mm-hmm. teg leen ci list majoritaire bi faf list ma ñun ñu gagné liste. raw ñoom ñëpp jàll. Mm-hmm. ñoom mujjuñu jàll nekk conseil. bon loolu am bi mu amee ñu dem ñu gagné comme j'ai dit bi ñu gañee aussi loolu ci session bi la après. dañ koy baral voilà bi ñu gagné ci session bi. dans la coalition. on s'est parlé pour xool nan la ñuy répartir. ci répartition yooyu nag ci lañ ni premier adjoint nañ ko jox waa PASTEF. moom mu nekk secrétaire général adjoint bi nga jox ko poste adjoint waaw non du man sax maa ko jox mais dañu waxtaan. waaw waxtaan dans la coalition bi ñu hmm. waxtaanee ñu déggoo ñu ni nañ ko ko def. encore une fois dañ koy proposer parce que il faut nga dem conseil municipal conseil municipal mooy voté pour ñi di parce que adjoint yi conseil euh, conseil yi ñoo leen di fal. Hmm. maire bi rek la fal. direct direct. léegi le bureau j'ai sept adjoints ñooñu jouru installation bi ñu may installé man ci lañ leen di fal conseil yi ñoo leen di fal. donc comme waxtaan nañ on est majoritaire dans la coalition naturellement bu ñu ñëwee donc c'est comme une lettre à la poste donc waxtaan nañ kan mooy nekk pied kan mooy nekk deux ba sept adjoints yi. ñu waxtaanee ko noonu mu jàll. je rappelle bi ñuy defar liste yi aussi Pastef lañ bàyyi mu majoritaire ci conseil bi kon Pastef moo fa ñun pur six lañ fa FDS bu Babacar Diop ñoo ñëw ci huit ñi ñoo ko composé composé coalition bi ñu fi ëpp doole comprendre d'accord donc bi ñu jàllee ci étape boobu ba defar defar suñu bureau toog et cetera aussi dans le souci aussi de boole ñëpp. Mhm. moom mu nekk sama premier adjoint ma def ko officier d'état civil. officier d'état civil ci centre principal bi toujours dans l'esprit du ñu mën a ànd liggéey comme esprit coalition la mais <clears throat> ci doxalin bi ci biir gestion bi li olof yi naan lu nuyoo ci ci ci ci ci nuñ koy waxee sax lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ci ngoro dañ ko dañ ko fayul d'accord gis nga difficulté boobu ñu amoon pour tànn ma ak yi ci xew mhm. ba ñu gañe comme ni ma la ko waxee ak même ci biir campagne bi sabotage yi ci am. Mhm. loolu li may wax ni du yow laa ko njëkk a wax. Mhm. moom mi ma ko seqal mu nekkoon sama euh, sama muy le le candidat du PASTEF. Mhm. ma nekkoon sama premier adjoint. mais aussi ma defoon ko maa ngi fàtte loolu ma defoon ko mu nekk sama directeur de campagne. ci campagne bi y a eu beaucoup de sabotage loolu wax naa ko de face bi ñu gagné ba pare. mais yooyu noonu yëpp jaf difficulté yooyu ñu amoon moo ñu dabaat dans la gestion. man analise boobu laa ci def. d'accord j'ai voulu faire table rase de ça bon jéem a faire prévaloir l'esprit de coalition comme ñun ñëpp ñoo ànd pour coalition bi nekk benn ñu liggéey n'est-ce pas mais bi ñu duggee ci gestion bi rek doxal yooyu noonu dafa feeñal. d'accord. preuve yi ma ci mën mën naa ci joxe yu bari mais ñaar ba ñett laa ji. waaw exemple très rapidement monsieur le maire je maire. nouvellement élu. ma ñëw fekk fi benn budget parce que bi ñuy falu. Mhm. janvier fekk na équipe bi ma bi ñu remplacé wote woon budget bi ba pare. parce que mhm. budget bi décembre lañ koy. leen ñëw continuer. bi ñu ñëwee. Mhm. ñu bëgg a budget bi mooy ñoom li ñu bëgg def nii au niveau national. loolu dinaa ci ñëwaat avec débat d'orientation budgétaire bi nga xam ni. assemblée daf ko mujj rejeté. parce que le premier ministre dafa bañ dem assemblée nationale. d'accord. nga xam tey mi ngi te ñi ko def waa Pastef la dama ñëw fekk budget bi ñu voté ma bëgg ko jooyanti mhm. pour prendre en charge samay préoccupation yi nga xam ne moo newoon sama campagne parce que mhm. dama amoon programme wax naa ko léegi te cadre de vie moo ci jiitu woon ma bëgg a jël def virement de crédit pour prendre en charge préoccupation éclairage public parce que boobu ñëpp ñuy éclairage éclairage population yi waaw Pastef bañ taxaw comploter ak ñi nga xam ni ñoo nekkoon suñuy adversaire waa réew mi ak waa APR nga xam ni ñun jour bi ñuy installé man maire ak ñoom adjoint yi ñoom woo nañ la presse ba dañoo boycotté séance boobu waa réew mi ak waa APR bi ñëwee ñun avant ñuy voté bureau bi rek ñoom génn nañu woo la presse def def déclaration de presse nit ñi xamuñu dara ñi ñu fi teg c'est des novices duñ fi liggéey dara moment ñun bi ñuy installé bi ma demee bay voté virement ñoom ñoom lañ dem àndal pour fexe virement bi bañ a jàll donc premier acte boo xam ne ñoom ñoo ko posé de rupture et de trahison mosuñu dégg kenn wax ko maa ngi koy doog wax nii sur le plan national. Mhm. bàyyi mu jàll. waxtaan nañ ma wax ci ñi ma ci mën a war a waxal à l'époque Birame Souley comme sama collègue la ci ñoom la bopp ma wax ko ko. ñu ko gis nga affaire bi on est dans voilà ce que les gens de Pastef ont fait dans ma coalition mes alliés ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont posé comme acte de rupture waaye mu jàll mais pire sama premier budget 2023 nga xam budget bi c'est le maire qui prépare le budget oui. maa ko préparé avec mes services ndekete man à ne insu demaat nañ comploté waat ak ñooñu cette fois-ci de façon plus large pour budget bi bañ a jàll tu imagines te budget mais population yi ñoo ko moom c'est pas pour le maire c'est pas pour le conseil municipal ñun bu ñu ci amee peut-être benn avantage suñu indemnité yu ñuy fay boo ko doon mesure xanaa 1 pour cent lay doon wala 2 pour cent ci budget bi. 99 hmm. pour cent yi wala 98 pour cent yi ci population yi la. ay école la. Hmm. ay poste de la cadre de vie éclairage la leneen ak leneen la ñu taxaw ni duñ ko voté. ba budget boobu 2023 sama premier budget mi ngi jàlle ak deux voix de plus waaw parce que boobu fekk nañu def liggéey bu gën a rëy comme échoué nañ ci virement ba parce que virement ba mujj na jàll mu nekk affront ci ñoom ñu ni dañuy jël seen revanche mais man kon waxoon naa ko biram rek moo jàpp naa ni biram peut dina waxtaan ak ñoom on va tourner cette page ba jàpp ni grawul quoi nekk tey ñoom il préparer pire que ça dem waajal defar waxtaan di def ay réunion loolu lépp après laa ko xam di dajeeg ñoom ñuy ban stratégie la ñuy teg pour affaire bi bañ a jàll. imagine nga bu budget boobu jàllul woon. 2023 ah, catastrophe sama premier budget en tant que maire ñu fal ma. qui vient d'être élu nouvellement. te budget bi jàllul ñu ni ñan ñoo ko taxul lan moo tax jàllul ñu ni ay alliés. ñoo ñoo ko bloqué ko bloqué. ñu bloqué conseil municipal bi wala bloqué budget bi ndax lool ce qui s'est passé ah bi loolu amee nag nag ci daa man damay il faut ma jël samay responsabilité parce que am na loo xam ne aussi ñàkk fayda la donc ñii war nañ ma carrément ni sont pas prêts à travailler avec moi ils feront tout pour fair barrage pour me bloquer pour m'empêcher de travailler ci la nag li ngay wax noonu ñëw xam nga euh, li li olof yi di wax tombé moo waral ay gaa mhm. te hasard amul faf bureau bi ñu defoon mhm. am benn conseiller municipal bu nekk ci mairie bi représenté fa les organisations féministes. Mhm. ak l'observatoire pour la parité ñu tuddee ko Dieynaba ko attaqué dem porté attaqué bureau yi ñu baaxul. parce que premier adjoint bi góor la te ñoom d'après ñoom jigéen moo ci war a topp bi ñu ko attaqué première instance ñu jox leen dëgg ñun ñu def appel ñu dem appel ñu kasewaat ñu ñu ñu joxaat leen dëgg kon maanaam mun mooy ñun neenal nañ ñoom am nañ dëgg suñu faut changer obligatoirement bon politiquement comme ñii ma àndal. gis naa ne ñu ngi may yàqal ils font tout pour yàqal ma ma ne dañuy changer bureau bi pour respecter la décision de justice. mais politiquement aussi. Mhm. je vais proposer d'autres adjoints au conseil municipal suñ ci d'accord suñ ko voté ñooñu nekk samay conseil et cette fois-ci xoolatuma coalition parce que pour man à Thiès Ouest après ñaari acte de sabotage yi ma la wax coalition bi amatu La coalition n'existait plus à, euh, à, à Thiès Ouest. Et c'est ce que j'ai déclaré. Ni man pour man bokkatuma coalition yi en tout cas Thiès Ouest coalition Yewwi amatu fa parce que lii mënoo ko dund ak ay alliés ngeen continuer di naxan di naxante seen biir. Mm, d'accord comprendre nga. Mm. léegi nag ci lañ defaraatee budget. Euh, bureau bi ngay doxalee ko defaraatee. Mm-hmm. léegi ñi ma proposé woon comme ay adjoint conseil municipal bi voté ko parce que conseil municipal bi ci boppam ñoom dañ dem ba constaté ni. Mm-hmm. maire bi. mënatul liggéey ak ñii. y' a blocage quelque part y' a blocage quelque part. comprendre bi ñu changé bureau bi nag ñoom nekkatuñu conseiller ci la accusation de gestion yi ngay wax di doog a génn ci lañ def conférence de presse. ni maire dafa sàcc xaalis dafa def détournement dafa def ay surfacturation lim ay marché wax wax wax wax ba seen xol féex. pour faire simple man juriste la man ak ñoom bokkuñu agenda man mënuma nekk di tontante ak ñoom voilà mu ñu génnee wax fii ma fa loolu awuma jot boobu. conférence de presse sur conférence de presse. Mhm. ma def sama point de presse. leeral. leeralu ma noonu damay damay porter plainte. parce que loolu du ci mbedd mi lay leere da nga sàcc. Mhm. da nga def détournement. Mhm. da nga def surfacturation. mais du ci mbembaa lay leere wala du ci. tribunal non rek la mën a reere. d'accord sama porte plainte pour diffamation devant le procureur de la République de Thiès actuellement fii ma lay wax nii. Mhm. ñu ngi ci yoon. mbir mi mi ngi ci loxo yoon. Mhm. yoon mooy ku ci ne ñu ngi lay convoqué ngay dem ñu déglu la nga wax. Mhm. naa dina leer. dina incha allah ñu bàyyi loolu ci loxo yoon mais pour terminer sur ça. xam nga man nee naa la waa assemblée ñoom benn yoon lañ leen ko def. yow def nañ la ko ñaari yoon ñoom ñu yuuxu man cinq fois. waaw <laughs> cinq laa la cité. 2024 ils ont refait la même chose budget 2024 dañ taxaw saboté ko ni duñ ko voté dernièrement coow yi nga fa déggoon ba police ñëw fa xam nga boo votee budget début d'année bi da ngay def li ñuy tuddee autorisation spéciale mooy li nga jotul woon exécuté daaw ci budget bi mhm. bu ñu clôturer gestion bi 2023 il faut nga voté waat pour loolu la ñuy wax report. d' accord loolu ngay jëlewaat ci deux mille ko mm-hmm. mm-hmm. bëggoon def. Mm-hmm. cette fois ci nag comme saa bu ñu ñëwee conseil municipal malgré leur complot ak li ñuy wax yëpp délibération bu ñëw day jàll. yàlla defal na mu sutura boobu. d' la majorité des conseillers. dañuy ànd bokkuñoo ak man ak parti de. parce que wax naa la six lañ fa ñun. dëgg la. man peut-être commune bi lañ xool. Ah, intérêt commune bi. ak xam ni. ah maire bii de wax dëgg yàlla mi ngi ci yoon parce que soxla ba ci kenn lem ñu liste ba ñuy ñëw amaana ñu ci bari sax foofu lañu xamante donte ñoo bokk Thiès mais Thiès dafa yaatu. d'accord mais gis nañ ñi ñu ngi ci yoon. am na solo ñu gis ni mbir mi ah liikat kat ku ko jàppale mu dem. Mhm. ñuy voté délibération yi di jàll. léegi comme ñu ngi échoué ci vote yi. mënuñu fexe conseil municipal bi bañ a voté délibération léegi ñu ni léegi dañuy utiliser la force la violence. pour empêcher le fonctionnement du conseil municipal parce que dans le code conseil bi su doxatul su bloqué. Hmm. délégation spéciale la code bi wax te ñoom loolu lañu bëgg te de loolu dañ ko wax dañu bëgg délégation spéciale ñu remplacer docteur Mamadou Djité te loolu pour mu am il faut ñoom conseil bi bloqué te pour conseil bi bloqué mooy dañuy fexe ba duñu voté léegi mënuñu fexe ba délibération bañ a jàll ñu ñëw nag avec la violence 28 mars conseil municipal bi 28 mars bi passé 2024 ñu ñëw indi ay nervi indi lu mel ni gaz asphyxiant. Mhm. comme comme lacrymogène. bi ñu toogee di def conseil bi devant le sous-préfet. Mhm. parce que bu ñu ñëwee li njëkk a def seen stratégie dañuy taxaw duñ dugg ci salle bi. xam nga boo amul quorum mënoo def conseil. quorum mooy la moitié des conseils plus un. bu ñu toogee ba gis ne am nañ korom. Mhm. ñu ngi commencé démarrer. ñu mhm. ñëw envahir salle bi. Mhm. suñu envahiree salle bi taxaw ni conseil di fi am ce jour ñuy wax rek ñu sànni gaz bi ci biir salle bi conseil yi commencé daanu ma évacuer salle bi woo police. finalement ce jour laa ils ont réussi à ce conseil bañ am léegi loolu mooy seen méthode léegi mu reporter conseil boobu le 25 mai ils ont voulu refaire la même chose. nga jël say devant cette fois ci nag ma jël samay devant ak ñi ma àndal parce que ñu sommes majoritaires ñu sommes majoritaires dañ leen doon bàyyi yaakaar ni euh, dinañ am raison garde dina am foo xam duñ fa àgg. Mhm. mais su ci dara desul lu dul defanteeg ñoom mais on va prendre le dessus. parce que ëpp ñu ñu ay moyen gënuñ ñu xam ces gënuñ ñu mën a euh, ëpp ñu ful. la ndax e que ce qu'on a fait ñu duma leen voté. Mhm. ce jour-là. affaire bi jàll ñu commencé di exécuter suñu budget. d'accord donc foofu la ñu toll. Mhm. pour wax la daal. Mhm. coalition bi à Thiès Ouest. ça n'existe plus quoi. non non non ça ñu ñu ñoom li ñuy kaas tey. Mhm. parce que yàlla ni muy defee kenn xamul la tey ñoom ñoo nekk au li ñuy kaas assemble ba bëgg di dissoudre assemblée man def nañ ma ko cinq fois à Thiès Ouest. Thiès cinq fois Pastef ak samay anciens adversaires def nañ ma ko cinq fois à Thiès Ouest. donc coalition bi moom ah Thiès même au niveau national sax bon loolu sax il faut c'est pas je suis pas la voix autorisée pour dire que Yewwi amatul au niveau national mais <laughs> regarde ce qui se passe. d'accord xëy na dinañ ci ñëwaat. d'accord léegi dañuy dañuy jàll.